Mm, du la première fois mais indi loo xamante ne ni neex na Sénégalais parce que bii mooy troisième personne boo xamante ne ni indi naa ko parce que indi naa fi sama maam Sénégalais apprécié ma indi fi sama yaay Sénégalais apprécié mais ki ma indi daf ma dàqal ci li ma indi maanaam c'est-à-dire maanaam leçon de morale yi ñuy joxee Sénégalais yi di ci gis seen bopp di ci yëg seen bopp moom taxul may wax parce que tey boo nee handicap moom moom moom moom jàppal ma ko handicap mm-hmm. te sax handicap mm-hmm. Euh, comme ni nga ko waxee ummi euh, ni ko boss waxee euh, jàppewu la handicap te yow sax doo handicapé ndax comme ni ñu koy waxee à chaque fois xel mentalité mooy handicapé ñu gis la nga doon koo xam ne macha allah yaa ngi koy dund ak fierté dama lay bàyyi nga wax ci li nga xam ne rek mooy li ngeen di liggéey ak nit ñi niñ koy apprécier. bon handicap pour man ci xol la parce que tamit am na ñoo xam ne seen cër lépp a mat te seen xol yi maara détaal ku ubbiwoon xool seen xol yi baaxul dëgg la may joxe ñoom nit ñi daal nañ bàyyi bu baax handicap parce que man sax taxuma may wax mais handicapé yu mhm. maa ngi ko dégg muy wax lu am solo te loolu maa ngi koy bàyyi xel te loolu gis naa lu bëri handicapé yu góor ñoo gën a sonn ñoo gën a sonn jigéen ñi. Mm-hmm. ndax lan nga wax loolu Oumy. ñoo gën a sonn ci lépp ci liggéey ak lépp. Mm-hmm. duñ leen sax bàyyi xel. Mm-hmm. billaahi bu dee jigéen sax des fois am noo mel yéen ñi xam góor yi buñ leen doon jël te laaj ñu dund. kon yenn saa yi da nga leen di ñeewant malgré que yow am nga handicap mais góor ñi nga gën a ñeewant mhm. euh, tey jii euh, su ma gisee ummi euh, mu doon koo xam ne laata lool sax xam naa balaa ñu ciy xuus dañuy dem seetaani témoignage ni ko bos ubbee muy nuyu yaay nuyu waat yaay nuyu waat yaay ba ñetti yoon yaay doon lu am solo si nit ba tax na ñu doon seetaani seen yaay yi ñoom ñaar yaayu ummi waaye dégluwaale ki nga xam ne rek mooy yaay boos ci li nga xam ne rek mooy euh, maanaam ñoom ñaar seen ànd ak li nga xam ne ñu ngi koy liggéey léegi léegi lay doon su la 7TV ci seen émission 7 voix du cœur. boos waaw ñaan ñu yàlla boole la rek ndax yàgg ñoo xamante waaye rëccu ma itam du ñu xamante parce que niñ nit bu boo xëyee xam nit. am na lu dolleeku ci yow mooy diggante boos ak ummi yàlla moo leen boole nag boos gis ko benn xaritu boos moo ko booleeg ummi mais tey jii defe naa mu ummi sax la gën a jàpp ko ki leen boole woon yàlla mooy doxalee noonu tamit ñu nangu ko waaw bi ñuy def soog boobu maa ngi ci kër gi di togg añ jour boobu man maa aye muy jouru dimanche parce que ñoom dañ doon def euh, chaque dimanche seen papa yi dañ doon dem di football yi terrain màgg daan léegi nag papaam génn moom nag ñoom dañoo takk seen papa léegi nag bi papaam génne muy dem di ko toppi yëguma ko boobu maa ngi si waañ bi ma toog toog xool xool gisuma ko ma ne magam bu góor bi dawal nga xoolal ma ummi parce que dafa mel ni dafa toppi papaam magam bu góor bi ànd ak moom biñ demee ba ci tali bi rapide bi di ñëw ci kaw ci kaw mag bu góor bi la naroon a jaar ummi xëcc ko ëllee ko bi mu ko xëccee ba pare moom it mu daw jéggi mais daf ko xëcc taxaw xam nga rek dafa tiit boobu rapide bi ñu jaar ci kawam léegi nag man dama toog ci kër gi ba mu yàgg rek magam yi daal di daw ñëw ne ma yaay mu naa mu ne ma ummi lu mu soloon ma ne ko brodé bu jaune mu ne ko kon de moom la oto bi tël fi ma nekkoon kër papaam da jéggi tali bi tali bi presque ci buntu kër gi lay jaar dangay mm-hmm. jéggi tali bi rek euh, jot ko bi ma ñëwee nag nanguwuñu ma xool ko nanguwuñu ma xool ko ñu ngi ko tëj ci biir kër gi téye ma maa ngi def lu nekk mais ñu ngi ma téye rek ñu woo ambulance ba sonn ñëwuñu ñu ne ma nag deretam presque lu mu deseeti ci deret bariwul léegi nag ma daal di jël taxi ci lañ dem ambulance bi topp suñu ginnaaw. waaw parce que nanguwuñu ba léegi ma laal ko parce que boobu nekkatuma nanguwuñu ma laal ko ñu ngi jël tànk bi ñu ngi jël ba neen sër laxas ko ci tànk bi ba léegi nii ba neen daggee tànk bi nii gisuma tànk gisuma ko. kon bi ci tànk la jaar ci tànk bi la jaar. mais baaraam yi rek nag ñoo dañoon. léegi dañ ko waroon a greffé docteur yi juum daggu ko parce que xam nga dimanche docteur yi mag yi en général duñu nekk hôpital. dañu waroon a greffé tànk parce que tànk yi baaraam yi dañoo dañoon. ñu dagg ko mais biñ koy dagg kenn abusé wu ah, ah, ah, nañ ma parce que dañu woo docteur bu mag ba sonn ñëwul après ci lañ ma woo biñ ma woowee man dañ ma ko ba woo papaam. Mm-hmm. papaam ne leen bu fekkee loolu mooy solution bi parce que dañ ne dañ koy sauvé ñu ne bu fekkee loolu mooy solution bi ah mais nañ ko dagg rek mais man biñ ma ko waxee man moom nekkatuma moom man moom. xanaa maak umbi ñoo ñoo xamatul woon dara ci tànk bi loolu bëgguma sax ñu ma koy fàttali loolu loolu xanaa moo jeexal samay rongoñ loolu moo nekk lu jeexal samay rongoñ ma defe na nag fa lay yem ñu doon dugg ci faj bi booba booba metti na torop sax waaw da nga daan xëy boot ko bu ñu demee bay dëgër danga daan xëy boot ko parce que xam nga ni mu toogee noonu da da ko daan may poids léegi la wàññeeku nii dama ko daan boot école bu ma ko yóbbu ñu rejeté ma. école yi wallaahi ma génnee ci bunt bi damay toog damay jooy ba dootuma mënati. te bu may jooy moom it si bàyyi day jooy ba. songu ma wallaahi azim fu mu ko yóbbu ñu rejeté ma. ñu di ko ci tàggat nag moom faalewul nit ñi parce que tàggat nañ ko ci ba nga xam ne yàlla dimbale na ko. fu mu nekk fii tey jii xëy na li ñu wax sax dafa am ñu fiy ñëw looloo tax amul ay nit mais fii chaque jour day fees ay nit boromi nit la xam nga nit day nangu dogal jullit lu la yàlla tegee ay nat danga koy nangu parce que jullit laa am na ñoo xam ne dañoo accidenté dee ci saase su ma delloosee sama xel ci yàlla damay gëm yàlla rek mais lu ma gën a metti ci sama àdduna mooy buñ daan dem hôpital daan metti bu demee ba mu ba fin bi ba mu ba ma des ak umbi kase man ak moom ak ay magam ñu nekk tout tànk ñu ngi fi bu ñu demaan hôpital da daan metti parce que dangay dem di dundal des fois ordonnance wala ngay toppatoo pour parce que chaque année dañ daan dagg tànk bi dañ daan daggaat tànk bi parce que bu fekkente ne moom day manqué yax bi day génn mm-hmm. yax bi su génnee pour mu sol protège foog ñu daggaat tànk bi mm-hmm. am sama benn kon dañ yeggul woon fii waaw déedéet woon fii. Hmm. mais chaque année soo gisee sax ñu yegg koo faj parce que moom dafa ne kenn tawtul laal tànkam. Hmm. mais chaque année da daan def opération. mais fi ma jaar ak moom mënu koo wax sama doom la mais fi ma jaar ak moom mënu ma koo nettali te parce que bu ma koy commencé wax bu ma yeggale. Hmm. jour bi ñu jaaree si tànk bi dafa mel ni dëj moo am ci koñ bi presque kenn tegul cin kenn tegul ci na ba pare borom oto bi dem. bàyyi ma ak moom ma des nekk ak sama doom di jubóo ko daanu nga yor ay njaboot gu ndaw sësoo fenn ngay jubóo ko daanu lu ne nga def ko lu ne nag liggéey naa ko xaw ma ñaan xaw ma taxawaalu fii rek laa xam yem ci li ma am nag soxlawuma daraay kenn lu ma am toyloo naa ko yar ci sama njaboot yar ko ci moom mii parce itam loolu yombul dem ba nga ñàkk sa tànk ba pare euh, yorool yenn yor-yor yi te jamono bi léegi ku yorul bokkoo nit ñi jël la bëggal la noonu seen bopp ba nga jaral leen lu nekk loolu sant yàlla la parce que man mi yaayam yàgg naa fi aar te meluma noonu mm-hmm. presque ñi ma xam bariwuñu kon moom sama doom bu juddoo yàlla def ko mu nekk handicapé am na leneen lu ko dencal mm-hmm. vraiment damay sant yàlla dolli santaat yàlla maa ngi sant suñu boroom man yàlla rek laa yaakaar yaakaaruma doomu aadama soxlawuma daraay kenn lu ma am maa ko ñaqal sama bopp jàngal leen nag liggéey ñoom ñëpp képp ku si jàng école soo génnee ci école bi teg naa la ci métier ñoom ñëpp am métier yàlla nag mooy moom ñu ngi toog di xaar yàlla. waaw ñu gën a góorgóorlu rek te xam ne. bu ñuy bëggee rek ñii dañuy bañ du ñëpp ñooy ànd di dina ñëw ànd yow sax nga yaakaar ne dalaa bëgg fekk na mi ngi ut lu mu xam ci yow ñu gën a maanu may dénkaat Oumy tamit mu toppatoo jàngam bi terewuma ko def lii muy def ban classe terewuma ko mu mm-hmm. ngi quatrième terewuma ko def li muy def mais na sàmm njàngam te xam ne loolu rek moo ko mën a dimbali ci àdduna balaa moo jàng sonn nga toog lu ne daj naa ko ci jàngam mhm. bi ma daj ci ummi dajuma ko ci sama benn doom parce que dama dama amoon yërmande ci moom ba pare dama ko jàngal liggéey bu la toggalee nga ne gonga bu la fóotalee nga ne gonga mën na defar kër gi mën na def lu mu bëgg a def mën na ko dara téyewu ko mhm. ma di ko wax mu topp njàngam bi téye boppam surtout loolu laa koy gën a diggal na téye boppam gis nga jigéen amul lu dul boppam fulaak fayda sa ndey du la ko jox sa baay du la ko jox yow rek yaa ko mën a amal sa bopp sa ndey mën na ñàkk fayda sa baay ñàkk fayda mais nga judd am fulla am fayda xam yow yaay kan ñàkk terewul nga am fulaak fayda nga sàmm boppam mën naa ko bàyyi nag mu def lu ko neex mais du ma ko baal bu defee la neen boos moom sama boos la boos moom sama doom joo xamante la doom ju ma yërëm la doom ju ma jéggal la doom ju ma jox cër la doom joo xamante it leen lu ma metti lu ma neex suba ba ngoon jot neex na ko damay xëy di jaayi ndox dem sa sàndaga laay jaaye di buux wante teew bu ma xëyee bu fekkee liggéeyul asalem jaayi tisi danaan ma yaay tey nan dem ma jaay le la suñ demee mu jaay la ma génneel ma bagage yi defaral ma ndox mi génneel ma boisson yi jàpp ñuy buux di dem aw ma daal li may bëgg daal maa koy ñaanal yàlla miy fay yàlla na ko fay yàlla ko fi yàlla saxal dàq yàlla avancé loo ko ba mu jëm kanam yàlla bu ko benn nawleem raw ci barke Seydina Muhammad yàlla miy fay daal moo ma ko fayal su ma wax ci boos sax damay jooy parce que boos damaa yërëm ci côté bu nekk côté bu nekk la ma yërëm yenn saa yi damay toog liggéeyu ma sama courant jeex boos moo koy jënd gaz noonu télé bii may seetaane tey ji moo ko jënd parce que liggéey bi demewut noonu jaay ndox dangay wàcc wàccaale 1000 francs bu doonu jàppale ma yàqu wala ma torox faree ci boos ummi ummi ummi aw ma parce que ummi bëgg na boos bëggeel goo xamante ni man naa ne ummi moo gën a boos ñoom ñaar kon ñaari xale yu bëggante dama leen di ñaanal seen ànd bi yal na ko yàlla saxal dàq yal na leen yàlla boole ñu am njaboot gu barke seen yàlla boole leen ñu sëy am njaboot gu barke parce que man ummi esa bii donc ummi damaa bëgg damaa yëg ummi day indi ay teraangaam bari jox ma na ma am ma am te boos taxawu ko damaa ñaan yàlla bu ko boos taxee moom xanaa man dama ummi dama yóbbu màkka maa ngi di ñaanal nag yal na leen yàlla jubale ngeen nekk benn seen yàlla dem ba nekk leen ngeen doon ay monsieur ak madame yàlla saxal leen dàq ci sëy bi yal na yàlla yokku leen ba ngeen yëg ko li ngeen di def yal na avancé ba ni yëg ko ba ngeen yëg ndax kontaan naa torop ci yéen lii ngeen di def man kontaan naa de kontaan naa torop ummi moom aw ma sa fay ummi baax na yaru na gune baax na yaru am na itte am na éducation ndeyam yar na ko ah yaayam yar na ko wante nag yaru koy man la ko yaral ndax ci man la nar a ñëw te man kontaan naa ci moom trop yal na leen yàlla barkeel ngeen am njaboot bu barkeel ci barke seen ngeen am taabu jigéen tudde ma ci barke oh. euh, damay ñëwaat euh, bos euh, ci li nga xam ne rek gis nañ ko mooy seen yaay yi dégg fi nga xam ne foofu la ñu génn ak yéen maanaam ñaanal leen jàppale leen ak yaayu ummi ni mu dundee handicap ummi fi mu jóge non yaayu moom dama koy ne à part war ne kooku noonu jigéen gu mën góor la mm-hmm. parce que jigéen gu mën góor weesuwul ne dañ ne ñaari loxo mooy takk tubay waaye ñaari loxo mooy takk sër mhm. moom daa boole tubay bi ak sër bi yëpp boole ko tax parce que ki nga xamante ne nii day yeewu quatre heures du matin dix heures di ko soog di ko feeb pour lépp rek ngir benn doomam bañ a sonn mhm. ngir lépp rek ngir kenn benn doomam du ñëwee kenn mhm. kooku noonu dama koy ñaanal yàlla suñu borom bàyyi ko suñu kanam ba mu fekkee lépp parce tamit mën naa ne moom ci aar bi lay nekk xam na bu baax li nekk ci aar li nekk ci aar fenn ngeen di gis nuyu yu bëri bëri moom moo ko waral moo leen koy jox <laughs> kon eh, ma bàyyi la nga wax ci sa yaay non sama yaay tamit même chose mm-hmm. parce que sama yaay moom tamit euh, mën naa ne tamit moom tamit jigéen bu mën góor la mm-hmm. day yeewu gis ngeen di ko suñu borom binde teewul na day yeewu mm-hmm. dem ba salle de vente di fa jaay dox yaay dee parce que moom tamit kenn mënu koo génne ci handicap yi dëgg la yaay dee mais xoolawul loolu boppam. sama yaay li gën a dee. li naan ñu ko gën a sut gën kaa sut. lu ñu mun da def moom da koy koy def. da koy def waaw. Euh, naka ngay dundeek moom loolu ndax dina lay ja euh, dal nga ñeewantu ko ci li nga xam ne rek mu ngi koy liggéey ak ni ko ni mu bindoo. xam nga man maa ko war a ñeewanteel. Mhm. moom moo lay ñeewantu. Mhm. Mhm. mu nekk nit boo xamante ne maanaam. nit nit nit nit bu nangu dogal. ndeysaan nit boo xamante ne ni tamit aussi mom tamit bëggul dara lu mu metti. ndeysaan parce que li naa rek ñun suñu yaay maanaam moo tax li li lépp ñoom moo ko waral. su nekkoon ñun personne ñun kase kase kase. man kay xam nga ñan laa yërëm ñu teel a ñàkk yaay. ñu ñàkk yaay. Mhm. muy lu lu lu daw yaram euh, naka la gisee euh, sa relation ak Oumy maanaam seen liggéey ak lépp naka la koy dundee moom. kan sa yaay. Mhm. sama yaay. day jàpp da ciy jàpp bu baax a baax franchement. Oumy tamit nekk moom nit ku nit ku nit ku gore. Oumy nekk nit boo xamante ne ni ku xam àdduna. Oumy nekk nit boo xam ne ku yëg nit tamit aussi. ñu yar waaw mm-hmm. parce que lépp lu ñuy def danaan ma nañ laa ci mu conseil yi mm-hmm. lépp lu muy def tamit aussi danaan buñ laajee mais ba pare mun ne nañ dellu si sama yaay laajaat ko mm-hmm. maanaam hmm. nit ku am kilifa nit ku am kilifa waaw nit ku déng si boppam keroog maa ngi sa li ma gën a gën a neex si moom maanaam li muy wax rek danaan ko li ma bëgg mooy leen nga jàng li ma bëgg mooy lenn nga jël sa sër ba mu ba mu jekk nga fas ko. Mm-hmm. Mm-hmm. sàmm sa bopp. sàmm sa bopp parce que nit amul lu dul bopp. lan ngay wax ci loolu en tant que góor euh, amaana tey jii euh, bokk na ci ñi ko mën a génnee ci kër gi. Mm-hmm. ndax boo dugg see si kër gi xam ne ko am kilifa la. bokk nga ci ñi mën a ñëw. ndax liggéey bi yëkkati ko génnee ko. yaayam jox la ko. am ci confiance lan ngay àddu ci loolu ak message bii mu ko lancé léegi. téyel sa bopp téyel sa bopp ba ñetti yoon. mais tamit jigéen amoon lu dul boppam laaj ko moom barki arxuraanu karim yi li may wax nii bu nekkee du dëgg na ma wax bërki démb kañ bërki démb rek lañ doon waxtaan si loolu noonu ma ne ko yaay benn bànneex kese la am ci doomam mooy mhm. jour bi nga xamante ne nii da koo da ko jël fekk fa mu fekk fa lu fekk mhm. ndeysaan ma ne ko yaay est xam nga ne boo demee ba sëy ba yàlla suñu borom def nga tas boo ñëwaatee du la fiire mm-hmm. ndax moom lenn kase la bëgg lenn kese. nga sàmm sa bopp muy nga sàmm sa bopp. ba ëllëg euh, li li waykat bi naan jomb naa lal mbalaan di ko laale sama yaay tim ko jooy. loolu kese kase bonheur boobu kese la am si doomam bu ay milliards. Mm-hmm. looloo ko a. comme benn euh, góor bu koy wan xaalis. wala mm-hmm. góor bu koy lii parce que dafa am kàddu yu mu saafante ak yaayam. kon mu ngi ciy bàyyi xel bu baax a baax. <laughs> doful parce que tey par exemple tey mën naa dem fu ko neex si àdduna te yaayam du ko yëg mën naa dem fu ko neex si àddunaam te bu bëggee def lu bon da def. Mhm. mais xam nga la la war a sóoraale moom du moom kase yaayam waru ko gën a gore. kase ki nga xamante ne ni boo bëggee benn mu jox la ñaar ki nga xamante ne ni boo bëggee juróom mu jox la fukk. kooku leen rek nga ko war a mën a fay li mu bëgg nga defal ko ko te amoo bis bu gën a rëy bis bi nga xamante ne ni moom dalay làngal say bàjjen toog say papa toog parce que tey ku fi bon dañ naan sa yaay la mm-hmm. tey bu bu bu melee ni mu war a mel lan la ñuy wax ah yaayam mm-hmm. kon boog mm-hmm. sër bi na ko gën a fas bu bu ko neexee sax mu jël mbaaj yi gën ko seet <laughs> gën a dëgër loolu doy na waaw ummi kon dañuy dem ci li ngay àddu ci li sa yaay wax sama yaay li muy wax dégg naa ko bu baax te tamit wax na wax ju am solo nekk xale du la tere nga am fulla mhm. ñàkk tamit du la tere diiñ ba tax na kàdd googu noonu fu fu ma dem mi sama bopp bi te lépp lu may def maa ngi sóoraale bu baax mhm. tamit yaa ngi sóoraale ummi euh, sa yaay euh, wax na ci sa choc muy loo xam ne wax nga ci euh, waaye tey la ci sa yaay génn ma bàyyi la rek nga àddu ci naka nga ko dundee dégg ay kàddoom ci moom li mu dundee li nga xam ne mooy sa accident non moom sama yaay aw ma fayam parce que sonn na ci man trop trop kon nag mënuma leen lu dul màgg teral ko loolu laa ñaan yàlla. <laughs> bi ngay def choc yàgg na. boobu yaa ngi am quatre ndax am na yoo ciy fàttaliku. man moom comme boobu ni ma nekkee xale. Mhm. yu bari nettali lañ ma koy mën a def. Mhm. ndax tamit boo nekkee xale yéen ñi bu la dalee mu ngi mais man moom sama accident man comme nit ki tey jii loo nekk xale nekk xale am na loo xam ne bu la dalee. Mhm. doo ko mën a fàtte. doo ko fàtte lan nga ci gën a jàpp. li ma ci gën a jàpp mooy àdduna mu solo. tey jii nii sama mag ji des fois nit damay enquête ne ma li nga def noonu li nga nekkoon xale la woon mais su doon dangaa màgg nii ak tànk nu mu neexee loolu xalaatu ko. ma ne ñooñu dañoo xamul rek deret nu mu mel. Mhm. man samay mboq ñoo ma gën a lu ne. te tey jii nii bu doon accident bu doon tey jii nii dama koy defaat amul leen lu ma ciy regretté. Mm-hmm. sa mag nga doon sauver. Mm-hmm. Euh, car bi dal sa tànk bi. Mm-hmm. Euh, muy ay moment yoo xam ne euh, doy na waa metti woon na bi nga nekkee xale naka nga ko doon dundee en tant que xale. comme ni ko sama yaay waxee. metti woon na torop. Mhm. yaa ngi fàttali ko bi la sa yaay li sa yaay wax ne bi mu lay boot di la yóbbu ah. hôpital fekk ñu. am loolu du ma ko mën a fàtte. naka ndax mën nga ñu ñëwaatal ci épisode yooyu. non loolu dafa metti torop parce que tamit des fois sax da daan dagg liggéeyam bi nga xam ne ci lay suturloo ci la ñuy kiiwee daka daan dagg di ma yóbbu hôpital ma temps yooyu noonu dafa tomb ak perfusion yi ma doon jël ak yooyu ma am poids. da sonn billaahi damay ruus. ni may bootee dama daan am kersa sax moom. Mm-hmm. ndax ni may bootee noonu ba ñaqam di daal sama kaw. xam nga loolu tamit neexul kon tey jii nii aw leen lu dul jàppale ko. jéem koo génn ci si yan ñàkkul ay jours yoo xam ne xale nga woon. mais euh, jàpp nga ci lu bëri marqué na la ndax comme ni nga ko waxee nii rek li gën a euh, li gën a maanaam li ci gën a ndaw sax muy ñàkkam boobu doon dal sa kaw mu boot la nga nekk mm-hmm. xale te yaa ngi ciy bàyyi xel mm-hmm. ñàkkul ay bés yoo xam ne moom yaa ngi koy fàttaliku bu baax a baax ndax mettitam ak taram lan nga ñu ci mën a expliquer ci moment yooyu biñ lay amputé euh, bi ngay nekk rendez-vous hôpital wala à chaque fois bu ñu la war a opérer lan nga ñu mun a indilaat ci loolu ni nga ko dundee ak moom sa yaay sama yaay tey jii nii bu demee ba takkul or walla bu demee ba tey jii nii dégg ñu ko fenn nii mën naa ne man maa tax parce que lépp lu lépp lu mu liggéey ci man la ko def sonn na ci man torop taru dajale taru denc taru dara ndax bugg tey jii nii ma màgg yee nii mu buggul dara lu ma metti sonn na ci man torop Euh, ban jour moo la gën a marqué euh, durant sa choc ak euh, léegi. man kay mën naa ne. sama choc ba ci gën a marqué ban la. jour boo dul man jour ma ci marqué dafa bari parce que man saay saay su su ma bootee rek man damay jour boobu day gën a métti ci man. parce que loolu dafa métti trop. tey jii ni ma dem mën a doxal sama bopp yëpp. sa yaay di bàyyi ay yittem de la boot talu dara loolu dara gënu ko metti dara <laughs> euh, laata ñuy ñëw euh, ci li nga xam ne rek euh, mooy loolu dañuy dem seetaani témoignage sa sœur ndax moom it àdduna jour bi ngay def choc yére bi ngeen sol sax yéen ko niroole mm. ma bàyyi la ñu daal di seetaani témoignage boobu daal di leen soit léegi ci waxtaan bi sur la 7TV ci seen émission 7 voix Oumy Sène magam laa ñu bokk ndey ak baay te teewul li muy def am na vidéo yu bari ku xool bu baax dig ma ci gis dama leen ci jàppale bu baax encouragé leen parce que Oumy Sène moom yàgg nañ ko proposé genre yu mel nii mais moom moo ragaloon musta woon ñeme bëgg génn ci ay vidéo wala ay tiktok yooyu noonu mais moo tax ñu gën a jàpp boos parce que boos ba mu demee ba ñemeel ko boppam ba mu mën a génn di def ay vidéo loolu kontaan rek la ñuy wax Oumy euh, Sène jour bi muy def soog comme tey si man jour boobu ñoo nduroole sax même yére bu ñu sol mu ngi sol borodé bu jaune maa moom ñëpp ñu ngi ko sol jour boobu mu tombeek ñu taxaw man ak sama mag bu jigéen taxaw suñu kaw terrasse bi jàkkaarloo choc bi moom sama papa mi ngi dem di dem entrainement mu ngi koy gunge mi ngi dem di ko topp ak magam bu góor léegi bi super ba mu ñëwee pour dal ci kawam moom mu ngi dem di sauver ji magam far yàlla bi super bi daal ka fay fekk parce que boobu xale la te super bi mënu ko gis boobu mi ngi am ay 4 ans léegi boobu man mii sax xale laa mais maa ngi fàttaliku ñu ngi taxaw ci kaw étage bi moom ba mu defee soog ba pare bu mu jugee mi ngi ñuy tàllal loxo man ak sama magu jigéen bi mais mënuñu ko woon xàmmee parce que tellement que ni deret bi taq na si yére yi ba yére bi too xàmmee ba xam jaune la wala rouge. mu ngi ñuy tàllal loxo ba ni muy perte mémoire noonu te ñun ñu ko woon après la sama mag bu jëkk saay tourné xool ma xoolaat ummi xool ma xoolaat ummi gis tissu bi jaune bi am tuuti di siy feeñ mi door a xam ne ne ummi seen la si la piqué crise foofu noonu di yuuxu waa kër gi ñëpp génn dundee nañ ko nu métti torop sax parce que moment yooyu noonu sunu caat bi ngi door a juddu nekk liir tooy xepp sama yaay mi ngi door a am doom ma nekkoon ak moom ñu toog affaire bi am ñu woo ambulance ambulance ñëwul ki ko fiir daaw na sama yaay moo mujjee ñëw nekk foofu tiim ñu woote woote woote ba sonn sama yaay daal mujjee jël taxi moment yooyu ñu ñëpp defoon nañ ñu ñëpp defoon nañ kenn xamatul woon fan nga nekk mais sant yàlla parce que xam nga lan moo yokk tax ñun ñu am courage mën a maintenir loolu parce que moom xale la te moom malgré tout loolu dal na ko mais moom mënul woon xam instant yooyu métit bi parce que ñu bu toogee suñu kanam ñu ngi fexe def tout pour mu bañ a yëg mais moom am na lu manqué ci moom ñu ngi moom di reetaan ak moom dañ koy bu max di ko bëreloo wala ñuy dox ba ci mbedd ba ci yàgg ñu këf ay beekeem mu tëb wala ñu këf beekeem koy dàq ji muy daw pour ñu dindi stress bañ xam na ni moom am na leen loo xam ne manqué na si moom mais malgré tout ñun lool daf ñuy metti mais duñ ko bëgg a wan ci kanamam parce que dañ daan ànd di sañse ñuy sol ñaari peer daal ñuy sañse di ndoole ñu siy xulloo baak moom man moom ko ay morom di si xeex di si def lépp ñu xëy benn jour des fois day sol daal sama koy tooñ naan ko benn benn peer daal bi ngay sol wala yooyu nangam sànni si tournage yi sax yu bari maa si def ba nit ñi doon commenté jour bi ma gën a marqué si jour yi mooy dafa am benn jour si bunt kër gi fii xale yi organisé benn sabar ñun fa te daf kaa mënoon nag léegi bu fekk na mu ngi door a def solam bi mu toog si sabar bi toog si sabar mi ngi bëgg a fecc bëgg a fecc mais xamul nan lay def pour fecc nit ñi topp ko di ko yuuxal naan ko ëmmi ñëwal fecc mu fecc mënut a fecc parce que boobu benn tànk la yore mais dañoo obligé daal di jékki saa jël benn chaise teg ko si digg géew bi yóbbu ko mu dem teg si benn tànk bi en fait si sabar bi sax am na ñoo xam ne dañ doon jooy hmm. mu fecc fecc fecc ñëpp yuuxoo ko ba mu gagné si jour ba mu nekk na jour boo xam ne daf ma gën a marqué koo xam ne bu bëggaan fecc daraan dugal boppam fecc tey ji mu dem bëgg a fecc mënut a dem feccal boppam ba ñuy jël ay chaise di ko tegal pour mu mun a fecc nekk na si moment yoo xam ne dafa ma gën a marqué si kii aar dafa nekk loo xam ne dafa doy waar te ñëpp xam nañ ne aar dafa doy waar mooy ki si nekk ak ki si nekkul tey jii ni ñuy fexe di def chaque jour loo xam ne comme ni ñu commencé bu ko bàyyi ñuy def chaque loo xam ne ni nit ñi dañ koy gis di si gën a kontaan mais nit ñi ko gis di mer ñu bañ a dugal kenn seen diggante ñoom ñaar waxi nit ñi bañ kaa dégg man moom li ma leen wax chaque jour nee man heure bu ngeen ma soxlaa man maa ngi fi. seen relation ñoom ñaar ah, loolu moom awma leen lu ma si wax ndax entre mag ak rakk man li ma fi mel si Oumy Sène noonu la boos mel si Oumy Sène parce que même bu dara tey ji boos mu nekk mu ñu féetee kilifa man maa gën a moo ñu féetee kilifa parce que ñoom ñaar seen diggante ay mag a raq lañ boos leen rek laa koy chaque jour na gën a jàppale Oumy Sène te xam na ni jigéen matu te ay waxu jigéen bu ko dee déglu rek ñoom ñaar seen ànd dem mais luy dëgëral seen diggante mooy chaque jour moom nay am maîtrise di comprendre Oumy Sène xam na ni ñun jigéen ñu ñëpp a yam ku topp suñu làmmiñ <laughs> ñoom ñaar ah loolu moom mos a dugg si ay mag a raq lañ daal. na ñoom ñaa ko ay mag a raq lañ ñoom ñaa ñëpp bëggante ñun ñett ñëpp a bëggante sa laay wax. déedéet yow sa sa su ma yoon nañ si moom. <laughs> jërëjëf euh, ñu jaajëfal ko bu baax a baax moom it ummi kii sa mag la waaye euh, mel na ni yaay ci yow mel na ni xarit intime ci yow. Euh, représenté na lu bëri ci yow lan ngay àddu ci li nga xam ne wax na ko. loolu parce que sama yaay moom dafa mës bëgg ñun ñëpp ñu nekk benn te ñun daanaka li ñu màggantee bari sama yaay moom dafa yàgg def comme tey jii nii ñu tolloo ni ñooy niroo lu ñuy sol bu ñu génnee dañuy jàpp sax ay seex bëgg dara luñ metti moom tamit sama mag la bëgg dara lu ma metti sama àdduna amul leen lu ma ko ciy nëbb lu ma mënti metti lu ma mënti def dama koy ñëw ba ci moom wax ko ko moo tamit bu xoolee amee lu ci lu ma ci conseillé mu conseillé ma ko ci. ñu gis ni mu dundee moom it sa choc. muy koo xam ne tamit affecté woon na ko comme ni mu affecté tout la famille. Mm-hmm. Euh, lan ngay àddi ci parti boobu mu wax. sama soog bi moom ñoom ñëpp la metti woon pare moom dafa nekk nit koo xam ne xol bi dara nekk si xam nga tamit. des fois mënu ñàkk ay maga yooyu am ay affaire seen diggante mais bu weesoo loolu xol bi dara nekk ci mag ju bari yërmande la mm-hmm. euh, boos bu ñu ñëwaatee ci yow euh, Oumy euh, ni mu dundee handicapam maanaam yëf yi ba muy am boobu fekkul ngeen xamante bi ngeen xamante léegi pendant combien de temps la bi ñu xamante yàggul mm-hmm. mën naa ne ci weeru koor bi lañ xamante mm-hmm. mais dama jàpp ne est-ce que suñu xamante jiituwul suñuy judd. dëgg la parce que lépp lu yàlla suñu borom di def rek damaa jàpp ne du hasard. parce que koo xam ne ba nga xamante ne moom matul sax un mois. Mm-hmm. ngeen dund loo xamante ne nii ëpp na dix ans. Mm-hmm. kon loolu mbiru suñu borom kese la. suñu borom la. Mhm. Euh, lan nga ñuy wax ci ni nga xam ne yéen a koy liggéey muy vidéo yeeg yooyu naka lay demee euh, tournage bi ndax yomb na ndax euh, yenn yi ça naturellement ndax lu ngeen di bind la wala naka lay demee noonu ndax damay gis maanaam sensation bi ngeen ci am maanaam ni ngeen koy sentiree te dañuy gis effectivement bu génnee noonu la ko nit ñi di sentiree ma bëgg xam ndax loolu boo xam ne daa am ñu nekk seen ginnaaw di leen ndeysaan non loolu xaj na mbiru suñu borom rek la laaj leen ñoom dañ naa ma yow est-ce que yow doo <laughs> maanaam doo rë doo rëboo parce que scénario yi ni muy ñëwee ni muy ñëwee sama bopp maanaam man du ma bind day ñëw naturellement day ñëw naturellement te tey bu dëgg dee suñu borom mooy ma def ma dara mais yàlla suñu borom mooy te noonu nga déggee <laughs> te amaana na man li may xalaat maanaam tey tey laa la wax su fekkoon ne man mën naa sax bàyyi di aar bi yëpp pour nekk scénariste. Mhm. risque lañ mhm. parce que yàlla suñu borom man wu. don la don la série yoo xamante ne nii tey damay leen di su génnee day def. day def day def mhm. euh, yi ngeen joué bari na euh, ñàkkul benn boo xam ne euh, dund ngeen ko maanaam moo la gën a marqué. bi nga xam ne moo ci gën a triste yow moo ci gën a émotionnel boo xam ne yow amaana boo koy nettali sax boo koy dundaat sax day laal sa xol ban la non loolu noonu moom du du luñ joué sax mm-hmm. parce que loolu lu ñu lu ñu dund la dox nii di ah, dem lu leen dund ok parce que dafa am benn jour ñuy dox nii moom dafa jàppoon ay fo sax mm-hmm. parce que ñu ngi dox nii di dem di dox parce que ñun tournage day metti trop si ñun parfois duñ am transport ak eh, gis nga suñu. suñu fleur yi ni mu bari. mais duñu am transport duñu am moyen bi. xam nga mm-hmm. Mm-hmm. mais teew Sénégal ñu leen di bëggal. Mm-hmm. mais ñi leen di bëggal si boppam ñun dañoo desee bëgg. tey neexul maanaam li ngeen di daj. pour tourner euh, nit ñi vidéo bi la ñuy gis. mu pare mu neex leen neexul nga jóge tournage. ñoo fekk sa yaay mu toog. yorul dara. yorul dara. et ça ñëw naan yaay may loolu dafa metti te koo xamante ne presque mu ci un million fleurs xam nga tey volontaire rek ñoo mën jàpp mais jour bi dañoo dox dox lu sori di tourné ji. mais ni di doxee moom du ko sonal ak. parce que moom boobu moom man moom man kii daw def. Hmm? mais jour boobu noonu dañuy dox yaa ngi dégg ñuy dox di dem xañ na moom daka. soofantal daka daka mën na moom nee na jàppee daal. Hmm. mais dañoo dox si amul yéen. mu ngi dox di dem fa sori nii te man maa ngi yor benn tànk yéen ngeen yor ñaari tànk bi dox loolu moom mu gën a ram jour boobu moom dama jooy ba sentir na ni hmm. kat jooy hmm. nga li ma gën a tuusawaat moom si boppam li may jooy metti ko ba mu tax muy jooy te moom nee ay ay caaxaan ko jàppe woon muy jour bi ma gën a remarqué sama sama tournage yaa ngi man umu su may monté suñuy video sax daf may am lu may def daf may egg sama biir xol mhm. barki alxuraanu karim mu nekk koo xamante ne ni tamit ku góore liñ naan ca yar bala la mhm. mais képp koo gis rek xañ na yaayam ni ko yara la dara fukkul ay bëtam yaa ngi dégg barki alxuraanu karim bañ na ba chaque jour dana am ah nañ defe nii defe nii defe nii buñ defee nii ñun moom moom si boppam ak man nañ nañuy perte mais nit ñi nañu bëgg. barke alxuraan te loolu noonu yaayam moo moo ko moo ko si yaayam parce que yaayam dañuy conseillé si loolu bare jox leen ñu jox leen ñu parce que duñu ñaar kese. Mm-hmm. trop ñu ñoo nekk seen ginnaaw chaque jour que j'ai fait day bëgg luy rafet. Mm-hmm. bëggul dara lu ñaaw. Mm-hmm. amaana bu nekkoon beneen yaay mën na jël féetale doomam. mën na bëggeeloo doomam sax. waaw chaque jour day défendre doom day day contrer doomam di défendre parce que loolu mooy àdduna. loolooy àdduna waaw mais léegi yow mooy yow nan ngay waxee loo xam ne moom mu ngi koy jooyloo yow nga jàppee ko ay kaf <laughs> mooy maanaam yaw <laughs> bu ma bu ma comprendre moom sax ah ñoom ñoo lay yëram mais yow maanaam dundoo ko daal. Mhm. Mhm. jooy da ko yomb jooy da ko yomb. <laughs> ñun ñun jigéen ñi sax mën naa la ñoo ko gën a dëgër ci côté boobu. Hmm, xol bee rafet. un jour ànd nañ ñu ramasse ñu. <laughs> ñu ramasse ñu ramasse fekk daa benn ki ñu daan euh, publicité fan côté fan léegi policier bi moom dafa amul ko parce que bi daan ko dafa ñëw bañ mu ne ko sama doon de yéen rek lay suivre yooyu noonu. Hmm. léegi ne ko comme loolu ñu ne ngeen suivre kon moo tax ngeen ñuy jàpp ndax loolu du yoon yooyu noonu. parce que nu mu waxee loolu yoon ñooñu ne ko ah ñun ngay wax yoon ak yi kon yéen fii ngeen di fanaan <laughs> mu toog di jooy jooy. a moom li ma jooyloo. amaana na jàppe na ko ay caaxaan. Mm-hmm. mais li ma jooyloo man xam lan moo ma jooyloo. moom moo la jooyloo. Mm-hmm. naka la la jooyloo rek. parce que jour boobu noonu dañ ñoo ramasse. police bi yóbbu Ndeye Khady man maay sama carte xam nga maire moom kenn du ko ramasse parce que maire ak ñoom moo leen ñu ne ko maire eh, maire <laughs> yaa dama toogee ne <laughs> léegi maire naan la yéen yóbbu leen ma boo ma mënee doo aw ñu ne ko boo waxee dañ lay dugal si oto bi léegi ñu kenn ki mu daw yaa ngi dégg mais benn ma jël maanaam dafa jóge ci fi ñu taxawoon dem ba ci buntu police bi taxaw fa ak ay beeke di wax ak ñoom pour ñu baal kooku mm-hmm. loolu noonu moo ma touché ba tax ma jooy. Hmm. maanaam yow daal à chaque fois moom li may jàppee kaf yow da ko ciy ñeewant. Mm-hmm. loolu moo moo tuur sa xewal. Mm-hmm. parce que tey amaana dañ naan kii man sama cafeel si moom fu ma ko fu ma ko natt rek. weesu na ko di def mm-hmm. parce que loolu suñu borom mooy mooy dogal. du nit mooy mooy dogal. du question cadre yërmaane du dara loolu suñu borom la. ci mbëggeel la boo xam ne moo nekk sa diggante ak moom. Euh, ma gis yenn saay ci euh, njàngale ba tey yenn saay nit daw si mën a daw gën koo gaaw nga paajal ko mu daanu keneen ñëw nga paajal ko moom mu ñëw nga la ngaaw man bu yooyu boobu bokk na ci yi nga xam ne ñëw ma ci gën a maanaam mënuma ko muñ daal mënuma ko muñ loolu maanaam dafa am lu may def man mm-hmm. euh, loolu bi nga koy turne ndax man lim ma def def na la ko yow ak moom. ba xam man def na ma waaye loolu weesu na ko man lu ma jee ak moom rek jàppal la lu naturel la. Mhm. Mhm. parce que li naan luy jóge ci xol di dem ci xol. Mhm. bu naturelu yow mi koy seetaan sax war ngaa xam ne lii naturel naturel parce que àdduna lépp loo gis rek lu naturel moo si daax. gisoo ko moom lu naturel la. waaw waaw mam j'ai vu j'ai ndax man léegi nii maa ngi ko koy wax nee naa ko man pour ma génn télé foog ma def fond de teint def poudre def rouge à fit fit bi yeew nii rek ah xaaral ma ma sang ñu ne la déedéet rek nga ñëw toog macha allah léegi lii nii fit bi. <laughs> yow mi da ngaa faa mère bi. non mère dama xaa faa lool lool tey. macha allah ah? mère dama xaa faa man gis naa ne ummi bëggul daraay artificiel bëggul daraay maquillage dafa naturel man mi sax du ma ko si seetaan mi bëgg mm-hmm, daraay. Mm-hmm, parce que mm-hmm. àdduna lépp loolu bi tey. maanaam day dund xale bi mu doon. non simplicité moo daax subhanallah parce que tey yenn saa yi day gis xala ay létt yu garaaw barki alxuraan ñëw naan ma nii lii su ma ko defee sama bopp mën na ko yow lii lu du jàpp lu kii parce que moom naturel moo ko jàpp barki yàlla bu maquillage sax du da nga naan ko xanaa sil ma ko bon sa arrêté waay na ngeen dem xool beneen témoignage la <laughs> encore di dellu si léegi léegi sur la 7 TV ci seen émission 7 voix du cœur. <laughs> ah mi de moom fa dëgg yàlla dafa baax. boos tamit dafa baax trop te suñu mag la suñu xarit la suñu ndaal la bokk. um tamit moom sama xarit la yàgg nañ trop man ak moom moom it dafa baax trop baax na baax na si man. ummi maa moom nu nañ lu bari waaye nag yàlla dafa def nii xam nga man fekkee ma sogam bi mais. après dans quelque temps ci laa ñëw dëkk si fii mais moom nag moom wax fa dëgg yàlla sama xarit la te baax na yu bëri nag da koy dund ci mbedd bi ñu ko koy wax dañuy romb ci mbedd bi ñu ñi di ko wax ay lu ne lu ne lañ koy wax ay lafañ beeg lu ne lañ koy wax dañ koy daa am na ñoo xam ne sax dañ koy xam mais duñ jaar si turam loolu lañ koy wax mais daf koy metti daf may metti man sax maa ngi koy mujjee jug dem lijjanti ji ko moom mu toog fu toog rek metti na daal lu metti métti daal lay dund ci mbedd bi waaye nag yàlla baax na. ah li ñuy liggéey moom dafa rafet moom rafet na te fu génn nit ñi dañ naan ko ummi ummi ummi yaa ngi dégg te moom tamit ba fa dëgg neex yàlla ummi moom amul benn problème dëgg rek lay wax moom moom amul benn problème fu génn ci mbedd bi xale yi dañuy daw ñëw koot si ko ummi li ngay def neex na rafet na baax na. moom ak boos yëpp daal man daal leen laa leen di mooy yàlla leen yàlla la fa cat loolu laa leen di ñaanal mu ngi jàngale mu ngi def quatrième wante yàlla na ko ci yàlla jàppale lépp dina baax mhm. yow euh, jabaru frère laa yow yaa doon ñëw di foofu <laughs> euh, ndax sa njëkk la. waaw gis naa ne yéen ñaar euh, koy liggéey. waaw ah, maa yàlla dafa leen cat. Mm-hmm. luñ bëgg yàlla leen ko yàlla defaral. yàlla taxaw leen aar leen sàmmal leen mm-hmm. loolu laa leen ñaanal. jërëjëf Oumy dégg nga li mu wax <laughs> Oumy Oumy dégg nga li yow daal nii nii yow naturel bi yow daal lépp yaa ngi koy dund naturellement ba ci ndogal bi la yàlla teg yaa ngi koy dund naturellement mhm. looy àddu ci loolu. loo mhm. man xam naa xam naa moom wax na ci yi ko gën a marqué mais yow dama lay bàyyi yewet nga wax ñu ci seen vidéo yi ban ban moo la gën a marqué. te bu ma ne nag bi mu àndee gel bi ndax xam naa ne boobu moom fiiraange dugg nga jooy <laughs> sànni nga béykat yi <laughs> daal di xalangu <laughs> moom xam naa ne bu normal la gaañu woo mbaa ci xalangu ah ok nan ban ban moo la ci gën a marqué ci vidéo yi bi nga xam ne moo gën a maanaam moo gën a laal sa xol. li ma ci gën a marqué bokk na ci comme tey jii sénégalais tey handicapé yi ñoom nu mën a jàppalante seen biir sax. Mm-hmm. jàpp naa ni ñi nga xam ne seen cëri mat na mënuñu ko tey ji handicapé yërmande yi ñu am mën naa ne ñu bari loolu moo leen manqué euh, tey joué naa loo xam ne comme mooy ba ma daanoon euh, xale bu jigéen ba mu rombee dama ko wax mu forom ma mais daf yaayam moo ñëw for ko dimbal ma conseiller ma tamit loolu bokk na tamit ci yi ma gën a touché man daal li ma gën a touché leen rek la doon mooy jàppalante bi ñun ñëpp dañoo war a doon benn. Mhm. na amul kii mooy lii amul kii mooy laa pour man ñun ñëpp benn lañ. benn nga lañ. Mhm. Euh, lan nga ñu mën a wax euh, ci li nga xam ne rek euh, sa xarit intime wax na ko muy ki nga xam ne moom ñëw na fii di foo. di foofoolu ba ba ba nangu sa frère <laughs> mujjee sëy si kër gi <laughs> dégg ko léegi. moom sama la. dund lu bari yéen ñaar comme lan. boo ñu mën a fàttali ci seen enfance. ay yaakaar naa xeex ndax. <laughs> ay taatim ay lan. ay taatim ñu laa ànd di bëlaw. ah yéen doon ànd di bëlaw. waa dund dund na lu bari ndax yow de yàgg naa taxaw nee ne la tegal nee mbéykat yi man maay xeex. waaw waaw naka naka nga dundee amoo boobu. buggul lu ma metti maam moom comme ñoo bokk ndaay ak baay fu ñu romb sax ñëpp dañ ñuy wax nuñ nuñ nuroowee ñëpp dañ naan yéen ñaar ñi moom da ngeen xanaa yéen a bokk ndaay ak baay te bugg tamit aussi dara dara lu ma metti daf may défendre côté bu ne waaw comme na nit bu ma waxee dara leen sax comme ni nga ko waxee ngay dox nit ki wax la lafañ bi moom mu su moment yooyu yow en tant que moom mi ngi xeex mais yow naka nga daan dundee moment yooyu ndax boobu nekkoo mag ni yaa ngi gën a nekk xale. te xale dangay gis ne yenn saay dina am loo xam ne da koy affecté naka nga daan dundee moment yooyu. non loolu moom dama ko ci gën a jàpp parce que tamit ku la bëggut wala yenn yi du ko sonnee ci yow. Mm-hmm. te xam naa fu mu toll si man bu baax. damay ñaan rek yàlla bàyyi ko fi. Mhm. mu muñ fi lu neex. Mhm. muñ fi lu naqari. Mhm. ndax xam naa ni sama mag bi ku ko bëgg la tamit. waaw macha allah ay xale lañ. ay xale lañ. waaw ñaanal leen daal. Euh, jërëjëf euh, ñu dem seetaan yi tamit euh, ki nga xam ne sa frère la moom it nekk ci kër gi ñu dem xool ko daal di soit léegi laataa ñuy tàggatoo ak yéen ñaar. c'était une belle une belle initiative par rapport comme li ngay gis léegi si si si si TikTok bi. peut-être comme à défaut comme comme peut-être à défaut moom ci nit ñi ni koy gisee ba koy bëgg peut-être ñun ñi nga xam ne ay dëkkandoom ñun ñu ngi koy bëgg pour leneen parce que nit koo xam ne nii peut-être jug na pour def dara en tant que koo xam ne nii dafay entreprendre des choses yoo xam ne da koy jëmale kanam ba pare ñi di ci gisaale seen bopp pour man loolu comme ni ko olof Ndiaye di waxee quoi da ngay métti doo dugg dam maa xam da ngay bégal say waa kër après nga bégal ñi ñi ngay fekk ci mbedd mi loolu defe naa koo xam ne nii gis na ko li gën a tuuti mooy mu encouragé ko bu fekkee amul benn jàppale ci yeneen côté bu mu ko mën a defal. bon franchement mu fekkee damay wax yàlla tax man gisuma handicap bi parce que comme nga woo nit mu ne la naam te am nañu ko mënul am kon defe naa lu ñu yàlla ci réer rek dañ koy jël mais man moom wax dëgg neex yàlla toogu ma bàyyi xel handicap bi waaw parce que su ma ko soxlaa dinaa ko. te ni may yónnee yeneen xale yi laa yónnee jëne moom laa koy noonu laa koy yónnee waaw des fois nag mu bañ damay wax lu leer moom des fois mu bañ waaw waaw ma yónni ko mu bañ mais waa damay comprendre xam nga xale yi léegi ñoom ay nekk ci whatsapp bi topp pour kaay fii comme niñ koy defee noonu des fois boo leen bëggee yëkkati da danga leen rey mais wax dëgg neex yàlla moom ci côté handicap man gisuma ko. Euh, adduna moom comme nañ ne comme dund moom dara sotewul nit. ku nekk ak lu la yàlla cëralee ak lu la yàlla xañ te ku nekk lim lay xañ du ko xañ sa moroom kon nit ku nekk war na xool ci jëmmu doomu aadama bi maanaam jëmm ji kese waaw pour mën a nekk ak moom surtout bu fekkee ne comme genre ummi la parce que defe naa maire bi moo ko dàq li ummi def nii. yaa ko dàq fuuf. boo xamul dégg nga waaw loolu moom loolu leer na presque loolu waxuma la bi Pikine mais leer na waa Sénégal kon. bu fekkee moom jël na xëy na place boobu noonu defee ko ci yeneen anam parce que léegi monde monde bi léegi dañ ko moderniser def ko ci yeneen anam defe naa jar na ku ci mën mu ñëw xool lu mu def ba jàppale ko waaw nit ñi nag bu ñuy wax jàppale dañuy foog ne sax waxu xaalis la waaye du loolu nit mën nga ko jàppale waaw mën nga ko non mën nga ko jàppale sax ci na la ko nan na xalay entrepreneur affaire am ci côté marketing parce que nit ñi xam-xam ñu yemuñu peut-être am na koo xam ne mën na indi benn par exemple téeméeram pour joxe exemple mën na indi téeméeram mais keneen day ñëw indi xalaat. Mm-hmm. te defe naa des fois xalaat am na fu muy toll moo gën téeméer. voilà noonu la demee. Mm-hmm. donc kon ci côté boo xam te ni nit war na ko gis ne war na ko ci mën a defal attu ba mu mën a avancer pour mën loolu waaw lu rafet la te incha allah war bi si kàttanu yàlla bu yegsee ci biir kër gi dina mel ni comme famille bi ñëpp. ñoo ko waaw mooy ki nekk ci mbedd meeg ki nekk ci biir kër gi ndax kër gi ñu bari dañ fi ñëw di fréquenter te dëkkuñu fi waaw kon nit ñi def ba mun a téye ñooñu ñëpp keneen ko ci ñëwit ak loo mënti indaale ci kàttan yàlla dinañ la téye ko biñ téye ñëpp. merci beaucoup kon nag euh, gis ngeen ko moom it sa frère la umi nee na yenn saa mu yónni la nga bañ ne da ngay sonn nag léegi naa moom mën nga togg mën nga fóot lépp moom macha allah boos. moom létt moom xam naa moom gis naa la nga koy joxel mèche yu bëri yoon yow moom buy létt sax yow doo ko bàyyi da ñëw toog ci wetam muy létt nga toogaanu ko boos tamit nag yow ko laa nga de <laughs> nañ waxante dëgg rek ah mooy sa coppati ah? waaye léegi létt tamit doo dem ñibbi bu léttee pare nga ñëw da nga ñëw toog di ko joxel ay mèche di ko c'est que da tamit da ngaa galant <laughs> parce xam nga rek mhm. comme ni ma euh, lépp rek ci yaru boo xoolee Oumy bu buy defandoog ay moroomam sax nga sant moroomam dara moom moo koy jëkk a def. Mhm, moo koy dàq moom moo koy dem defi. Mhm. létt bi da ko jàng. létt bi moom nee na bi mu nekkee xale la ko daa fooyee. moom moom daa koy xamoon nag salon moom fu mu nekk ci boppam. mais mhm. salon moom. lu mu yàgg rêvé la. ah mais nañ dañuy tijjil salon sax nag ci émission bi. ndax ummi fu ñu ko gis mi ngi. mi ngi létt ah. maa ngi koy lancé bonne ñëpp nañ ñu jàppale ubbil ko nga nim salon. nga xam ne yow moom da ngay ñëw rek di superviser. Mm-hmm. ummi bëgg nga létt. <laughs> ko defee man mën naa dagg ticket sax garab. ngay dagg lan. <laughs> waaw léegi man li ma jaaxal. Mm-hmm. léegi moom bu ñu ko tijjiloon salon yow tam da ngay ñëw tamit encore. non salon maanaam soo gisee. bu ñu ko ubbi woon tey bu ñu ubbi woon salon tey maire bi sax day ñëw parce que bee dàq leet. moo dàq leet. maa wax loolu mais mais man li ma bi oto eh, ñu ko Sénégalais di waxee leeralal nañ ko mais dañ leen koy gën a leeralaat. Mhm. parce que tey Sénégalais gis nañ yéene bi ñu am. ci dañoo mhm, mhm. que tey ñun mérito nañ lu ëpp oto. que tey benn américain la xam lan la ma doon wax. bu boo déggee man américain mooy États-Unis la nekk. Mhm. mu ba xam ñun ba léegi nguur gi recevoir nañu. Oh. mu ne ko amin waay mu ne mooy ñu ne ñun liñ def nii su fekkoon na nguur gi suñ première vidéo la ñu ñoom ci lañ ñuy recevoir. Mhm. terewul mais loolu loolu mi ngi daa mel ni nekk na mhm. sax à travers cette daa mel ni nekk na. Hmm? <laughs> recevoir boobu nga wax man ne daa mel ni nekk na à travers suñu télé bi 7TV. Ah, ah. daa mel ni nekk na ba pare. lancé recevoir bi day nekk léegi léegi kon nag suñu suñu yaay sax na ñëw na man suñu yaay ma Marème Faye laa lay ndeyale yow. <laughs> bu boobu mais da ngay def li maire bi wax ba pare de. Hmm. takk ba mu dëgër. bu boobaa moom mooy doon ndey. <laughs> incha allah bu ko bu ko dëgërul sax maama loolu force la. <laughs> loolu force la. Ah. boos xam nga comme niñ koy waxee rek ñu dañuy ñaan volonté yi. Uh-huh. parce que tamit ñun duñ ne euh, may leen ñu non non. parce que uh-huh. ñun xamoo ñaan ñun suñuy suñu yaay ñaan. seen propre moyen mais mais du may leen ñu mais gis nañu mm-hmm. li ngeen di daj. ndax ñun tey jii rek bi ñu ñëwee mm-hmm. euh, pour. tey jii ngeen dem da ngeen war a tourner ji mais dangeen ngeen mujjee annulé mm-hmm. parce que moyen de transport amu fi mm-hmm. matériel amu fi yu bëri nekk yoo xam ne tey jii soxla ngeen ko mais nit ñi ñi ngi leen di gis nii gis vidéo yi ñee leen mais li ngeen di dund ci ginnaaw mm-hmm. amaana ku leen seet siwul du ko xam tey xoolal duma la duma la nëbb de tey damaa war a ñëw fii barki Seydina Mohamed maa bàyyi ko message na ko may paas <laughs> kon léegi boo see <laughs> maa ngi soog a comprendre ndax nee naa la man ngi dégg mu ne wax nga ma ñaari yoon mu ne ma mu ne ma baax na. yaa ngi dégg. Mhm. mu ne ko loo xoolal rek lu sa xol mu weef ma 2000 ma taxaw foofu heureusement benn càq-càq gis ma. Mhm. na ma waaj béggee ma genre yooyu mu ne ko mu ne ko wax nga ma ñaari maa ngi parcelle te tournage bi Pikine la. yaa ngi dégg mu ne ko Pikine après moom mu mu mu yóbbaale mu. damaa yóbbaale démb bi ma essai laa ko toj jënd si ndox. jënd si ndox si laa leen jox yéen. ci nga ñu jox mhm. mais mais loolu rek wane ne boromu jom ngeen. Mhm. am ngeen volonté mhm. bëgg ngeen. mën a góo leen ku leen jàppale ngeen jël. parce que tey man boo gisee nii man commerçant la yaa ngi dégg marchand ambulant damay jaay. te sama jaay ay tissu laay jaay. samay jaay su ma si concentré mu damay dama dama ci am xaalis bu bari. Mhm. mais dina toll benn moment boo xamante ne nii tey. da nga bëgg ah, aar da lay moom. Mhm. yaa ngi mhm. waaw boos euh, tey jii bu ñu boo waxee gisee umu ni muy dundee handicapam. ñu gis la yow ak yow ni nga feeree ak sa yaay. Euh, lan nga ñuy wax seen diggante yéen ñaar. sama diggante ka sa yaay. sama diggante ak sama yaay comme ni ma lay wax rek. parce que lépp lu lépp lu xew rek jàppal na suñu borom la. nit amul lu dul waajuram waajur nu mu mën di mel waajur la te waajur mooy nekk nit boo xamante ne nii tey danga ko war a fësal ba Sénégal yëpp xam ne kii mooy sa nga am ci fierté ñu gis moom it ni ko yàlla bindee muy dem di jaayi ndax di ngay dund yenn saay moment yoo xam ne dina metti ci yow ci li nga ko mënul toogal nopp noppal ko non waaw dina metti sama côté trop mhm, mhm. parce que tey nit bu sañoon tey du gis yaayam muy muy muy dox yenn yi tey tey tey ma li gën a dee waxuma la sama yaay de barke naa Mohamed laa la waatal yaay ummi su ma ñëwee man su ma ñëwee si kër gi na tëj barke Seydina Mohamed yërmande bi may bi may am si moom mm-hmm. ah billaahi wallaahi damay damay toog yenn saa yi sa xol tooy sama xol day tooy mm-hmm. barke alxuraanu karim bu ma yàlla mayoon ah benn di ko bàyyi moom defal ko euh, lan ngeen di tàggoo ak euh, lan ngeen di lancé mooy li nga wax léegi rek lancé woo leen ñaan. Mhm. du ñaan kenn ndax tollu ngeen foo xam ne sax yaakaar naa war a tooleen sax wax. Euh, jàppale leen ñu si lii mais ku leen jàppale ci li nga xam ne mooy seen lii ñuy def di ci mhm. bëggal nit ñi ñu jël ndax nag soxla nañu yu bëri mhm. ku la ne bu jóge parcelle amul transport pour ñëw pikin xam nga ne la mu soxla ca ginnaaw bëri na li ñuy filmer lu leen jàppale seen équipe beeg yépp a ngi ci kon nag euh, xam ngeen numéro képp ku ñu jàppale ci ñoom ñaar ci li nga xam ne mooy aar bi mu gën a avancé yëf yi ñu gën ko teg ci yoon mm-hmm. ndax nag euh, mun naa ne vidéo taqale fi la nii taqale la maanaam taaba taaba ñun dañoo bëgg lu gën a professionnel ngeen génne ñu lu gën a professionnel ñaa ngi laal <laughs> tey suñ sañoon def benn long métrage boo xamante ne nii tey mi ngi noonu dañ leen di may douze minutes <laughs> te boobaa ngeen di xam fan lañ mëne fan lañ fan ngeen mën waaw parce que waaw lenn rek la ñuy wax volonté yi. Mhm. nañ ñu jàppale. Mhm. yaa ngi dégg parce que instant yi ñu ngi nii bu dëgg dee dëgg rek day metti trop suñu côté. day metti soo déggee day metti suñu côté ma mhm. mooy maanaam xam nga ñun tey mën nañuy dox di dem di tourner mais ana tey nga dem tournal dem ñëw say waajur. te yenn saa dañuy dem tournage ñu invité ñu télé ñu dem ci télé. yaa ngi dégg. tey transport sax pour. pour billaahi walaay mhm. am na émission yu bëri li tax ñu koy rejeté maanaam parce que ñoo ñoo leen war a fekki. Mhm. te xam fii benn télé doo ko fekki parce mhm. moom day jàllale sa produit. di la jox ay transport yooyu yooyu sax war nga kaa rusa wax. yaa ngi dégg. mooy tax ñuy bàyyi émission yu bëri. ñu ngi ni euh. fan yi dañ doon def live pour di jaay. mais dañoo mujj daanu ndax suñu départ bariwul. jaay la loo doon jaay. dañ doon jaay ay silalement ay ay. ay caleçon jaay de ak ay t mhm. départ bariwul. bariwul yi daa mujjee. umu <laughs> <laughs> waxal umu waxal laataa ngay tëj loolu man yëguma ko de live yeen fi yéen ñii live yeen ana bagage yi loolu lañ jëndoon ay ay ay Caleçon ay Maradona. Mm-hmm. ay kii ay kii ni koy waxati ay. sous-vêtement ay t-shirt t-shirt couple yëpp. Mm-hmm. waaw parce que kon t-shirt couple yi mooy yi ma gis ngeen di sol noonu yéen ñaar waaw dañ ko doon jaay loolu yëpp a ko doon jaay waaw mais nit ñi nañ ci commandé na wax dëgg yàlla foog ñu jàppale sama couple bii man man maay ñaan dimbal fi mu ne nii ñu jàppale sama couple bi ah ndax loolu yëpp loolu yëpp projet la tey jii loolu ngeen niroole noonu mm. euh, couple bu bëgg na leen woo ngeen defaral ko mm. ngeen am ci dara mm. euh, umi lan nga wax nga ne yow xaalis bi yëpp paase ngeen te yow umi yow bu dara desul lu dul dox yow moom nit ñi dañuy dox ànd ak yow di jooy yow amoo stress loolu mooy problème bi. yaa dégg te instant yii xaaral dañ ko koy passé jënd ko connexion ndax man xam ne man sax deux jours damaa war a jënd connexion. kon yéen amoo kon fi mu ne nii tournage sax dool amoo leen wifi boo xam ne moom ngi léegi kaay ma wax la yow Oumy yow yow naka nga. <laughs> man moom bu dee téléphone bi may filmé c'est bon mais moom boo ko gisee. et ah, bu génnee téléphone yi ummi ci. voilà léegi ummi yow yow sa yow sa téléphone melal ni ñëw na. te moom day nangu téléphone am sama téléphone dama koy jël moom. da koy jël ndey siis. ummi nga ne xaalis bi passé ngeen lépp. mais boo ànd ak ñoom boo ànd ñoom boo ànd ñoom di dox day métti. dox bi day metti mm-hmm. bu soree distance bu soree. Ah, waaye ñoom pour ñu wax leen dox bi day métti oto bi ah. oto bi amul amuñu oto. ah oto bi ay kon gént bi parce que man oh, ma. Mhm. na ma ana sa oto bi ma wut waay. Mhm. su ma doxee ñu ne ma ana sa oto bi. taxi waxaaloo ma ko. oto bi publicité la woon. publicité la woon yaa parce que xam nga tamit publicité marketing ak ni nga koy defee. Mhm. jusque nag juum na ci benn côté mais tey mën nañ ne Sénégalais dinañu comprendre hmm. publicité la woon waa ot waa kooku ñun doon publicité oto AF business léegi ñun amuñu oto hmm. pour yéen ñi nga xam ne bëggoon ngeen ñoo may <laughs> mën na ñëwaale oto yi mën na ñëwaale waaw amuñu nag amuñu amuñu oto ah? amuñu waaw ah, te parce que caabi sax amuñu ko waaw ah, ummi ni mu ko waxee dëgg la euh, man may wax ni rek mise à part sax boos bu dul boos sax ummi rek mën naa tax kenn seetaan ma nii nii nii mayal ma leen oto. <laughs> ndax nag euh, jigéen la. Euh, macha allah gis ngeen ni nga xamee ne rek moom day jàng ah, mi ngi toll quatrième moom day jàng ah. du da jàng umu yaa ngi quatrième yaa ngi góorgóorlu fi mu ne classe préparatoire nga nekk sa yaay dénku na la quatrième xam nga li ci topp. Hmm? kon noonu dañuy ñëw fii ci arrosage bi léegi incha allah mais laataa la ah amiin ñuy ñaan rek euh, ku ñu ko mayal oto ndax metti na euh, dégg ngeen ko léegi li ko gën a frappé bokk na ci ñuy dox ñoom ñaar distance bu soree di dem tournage mu xool ummi xam ne li muy def mënu ko mais am volonté bégal sénégalais yi moo ko waral ba tax na nag euh, ma bàyyi leen ngeen tàggoo. dafa nekk di jàng jàng bi nag comme ni ko maman waxee rek lu ci góorgóorlu parce que jàng bi yàqaluñu ko tournage dara. Mhm. ça n'a rien à voir xaw ma. ça n'a rien parce que boo xoolee samedi ba samedi la ñuy parce que boobu du du jour bi dañuy yóbbu suñuy yéene. Mhm. tourné yaa ngi gis benn jour bi mën nañ see tourné dix vidéo dix vidéo si lañ koy dugal ci semaine bi. Mhm. kon boobu côté jàng bi ak loolu sa jamas bi. diamétralement opposé waaw yaa dégg <laughs> képp ku ñu mën a jàppale nga jàppale ñu mhm. xam nga tey bëgg na leen jox loo métrage yaa dégg gaa am na ñoo xamante ne ni tey am na benn daam bu nekk Kaaba may nañu ordinateur mhm. pour ñu siy liggéey mais ordinateur bi mhm. du ordinateur boo xamante ne nii dina mën def yenn montage yooyu tey soxla nañ ay caméra soxla nañ ay matériel soxla nañ bu bëri yaa dégg yàlla daal baax na. yàlla baax na parce que yàlla dina ñëw léegi léegi. ku muñ muñ te seen numéro moom ñëpp xam nañ ko mi ngi nii di circulé moo nekk ci TikTok bi. Mhm. numéro bi ñëpp xam nañ ko nañ leen woo jàppale leen ci suuf. waaw euh, Oumy looy wax Oumy naturel looy wax looy tàggoo. xam naa ne boo soxla na oto bi mais yaa gën a soxla ndax yaa dox bi ci yow la gën a metti day fagu rek ay duma sonn ak yooyu day metti dox bi day metti nee moom mooy dawal. nee na moom mooy dawal oto mais mën na ko dawal. mën na ko dawal oto bi ñu koy may da koy mën a dawal man loolu xam naa ko ndax am na oto yoo xam ne mën na ko dawal te oto boobu lañ koy may sax nag lañ leen di may yéen ñaar est-ce que du nekk ñaari oto sax ummi looy tàll xeex bi laay bañ ñaari oto baax na. mën di buloo. naa bu ñu xullooyee ma ne la wàccal ma. nga wàcc nga wàcc ndox ma dawal. Oumy sadigee woo noonu <laughs> mm. sadigee woo noonu Oumy Oumy <laughs> looy tàggoo kontaan nañ trop. Mm-hmm, mm-hmm. li ñuy wax daal ca kaw ca kanam yàlla baax na waaw yal na yàlla sottal lépp. Mm-hmm. waaw ba ñu mën a àggali lépp liñ bëgg. teral suñu yaay. yaa ngi waxaat ci yaay. yaa <laughs> yaay surtout <laughs> ah, yaay. surtout yaay. yu bari mm-hmm. ah. tamit di ñaaxaat tamit di leen wax ni handicapé du ci ay cër ci xol la. ci xol dañ jàppee seen bopp ñëpp ñoo yam. Mm-hmm. tey jii ni am na ñu bari ñoo xam ne duñ génn ma leen wax ni àdduna amul solo. ngeen génn feexal seen xol yi baax dee bi daa gaaw de ma bàyyi la nga sensibiliser leen ndax am na ñoo xam ne dañoo am complexe de tuur seen handicap mm-hmm. am ñoo xam ne sax bu ñu amee doom bu nekk am handicap dañ koy nëbb mm-hmm. ma bàyyi la nga sensibiliser ma leen waaw ma leen di wax ni handicapé bu ci ay cër ci xool la mm-hmm. tay jii bu sa xool rafetee rek pour man dara manqué wu ñëpp génn ambiance lan mooy xam nga français bi dana que français bi dana la handicapé sépale dans bras. et les relais. yaa ngi dégg. la handicapé c'est dans le cœur kon nag na ñëpp génn ah waaw ñu bañ a nëbb suñuy handicap te xam ne suñu borom mooy dogal ah suñu borom mooy dogal te lu mu dogal rek dañ koy nangu ummi tey jii am na ñoo xam ne ñi ngeeg seeni ñaari loxo ñaari tànk bëgg toog fi mu toog bëgg nekk fi mu nekk ndax bëgg bi ko sénégalais yi bëgg ak euh, boss mi nga xam ne ñoom ñaar seen couple macha allah kon nag euh, ñu leen di jaajëfal bu baax a baax euh, mbokk yi nga xam ne yéen a ñu doon seetaan di leen wax ne lii lañ leen indil woon tey muy couple boss comédie ñuy solo xam ne rek mooy TikTok bi di def lu am solo macha allah di sensibiliser waaye nag di ko dund ñoom ñaar euh, dund nag ay moment yoo xam ne yu difficile la ensemble waaye nag jàpp rek ngir bégal sénégalais kon nag ni ma ko waxee seen numéro ñaata laa ci. waa ñaata <laughs> day prononcé teg ci <laughs> seen numéro ñaata la. 78 464 53 15. neex na kon nag Guèye ah 78. yaa yaa yaa <laughs> am chéri yaa am chéri bu civilisé ñaaw <laughs> waaye garaawul euh, bu bu monsieur jàngul itam madame jàng na lépp kon euh, c'est du pareil au waaw non umu france rek lay làkk kon merci beaucoup à vous ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ma jaajëfal ñi ma àndaloon ci wàllu cadrage bi Mouhamed euh, ak ki nga xam ne rek mooy euh, kebe Ndioga Ali euh, chéri Anta Bayo Assane merci beaucoup ci cadrage bi di jaajëfal bu baax a baax ki nga xam ne rek mooy lamin Mbeng ci montage bi ak équipe am yëpp Papis Mbaye waa production bàyyiwuñu kenn ñu ngi leen di jaajëfal di jaajëfal ñi nekk ci logistique bi di leen wax fi amaandi laa jàngeen jëf merci beaucoup à